salaamaaleykum internautes yi di leen bu baax a baax yi ñuy topp ah, national international comme ni ñu koy waxee actualité lamb la ñuy topp ba léegi tey nag ñu ngi fii ci Colobane fekk fii suñu mag suñu grand suñu nijaay ñu naan ko coach bari Max nuyu naa ko bàyyi ko mu nuyu internautes yi daal di présenté wu coach maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay ah, di nuyoo di nuyoo comme ni mu koy defee à fois di nuyu bépp coach bu nekk Sénégal. mooy def émission bi ak yéen. donc ak respect bu bu mag a mag. donc comme ni mu koy defee rek di tudd paa ma formé. Eh, di nuyu waa Colobane nekk doomu Colobane juddoo fi màggee fi. di taxawal Colobane ci sport bi li ma yàlla dénk. Ah, di ñaanal yàlla père Habib Gueye ah, yàlla xare ko àjjana donc ku ma formé la ku sonn ci man la eh, père Serigne Thiam yàlla na fi yàgg te maître Rhône ñu ma forme donc fii ci Sénégal donc maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. ci fas yéene génne sama xalaat tey ci euh, làmb Sénégal incha allah. Mhm. ayca ginnaaw bañ la nuyoo waaye nuyoo rafet na te leer na ñu bëggoon xam coach da nga koy jàng dem jàngi coaching wala da nga xëy rek ne dama nekk bëgg a nekk kot coach nekk coach. ok bu dee bu dee man la man sama sama jaarukaay dafa am solo. Mhm. parce que ñun bu ñu juddoo nekk Colobane fii màgg fii dañ fi fekk salle musculation ñu koy wax caam Hercule moo tax ñu bëgg weñ bu ñu gënee nekk xale fa lañ daan fooyee ci këram donc ñun fa la ñu virus bu duggee ñu màgg ci màgg ci màgg ci dem ba bi ñu commencé ràññee musculation di dem di ni bëgg ko euh, après Habib Gueye moom ma formé te bi may Habib Gueye di formé loolu yàgg na parce que dinaa ci ñëw tuuti euh, boobu am na mbër yi nekkoon ci saal ba comme euh, Birame comme bu ñu waxee mbër yi am na benn mbër bu naan euh, sama sama waay ñu ngi koy wax Xaadim Ndiaye numéro de mu ngi nekkoon ci saal ba Habib Gueye tëjoon ko lu yàgg di ko formé. Mm-hmm. donc Baboy tamit fekkoon na ma ci saal ba ñooy tudd xam nañ li may wax dëgg la ci Habib Gueye. donc même père Mor Fadam ndeysaan bi mu war a bëreeg euh, Tyson Gambie bi ñu koy entraîné maa ngi ci salle ba xam nga loolu yàgg na. yàgg na donc pa boobu moom ma formé ci musculation bas âge. Mm-hmm. jàngal ma xam-xam bu leer bu wóor jàngal ma tamit lan mooy coach comportement nan la war a mel nan la war a jëfee loolu am naa sens boobu. Mm-hmm. ak Thiam Hercule ñoo ñoo ma formé. Mm-hmm. nga daal jógee ci formation boobu rek waaye bi nga ubbee saal ak léegi. yàgg na wala yàggul. yàgg na parce que salle bi def na 17 ans. 2004 hmm? 2004 laa ko ubbi. waaw 2004 laa ubbi salle bi. Hmm. Hmm. ba nga ko bëgg am nga ay jafe-jafe wala. bon jafe-jafe xam nga loo bëgg di ko def. man salle tey dañ may tooñ na ma tey bu mu ci xëyoon di gagné ay milliards du ma def nii toon na bu ma ci daju ëpp fuuf. moo ëpp fuuf fi ma jaar ci sama carrière sportive dafa sori na gudd na te yàgg na. Mm-hmm. donc jafe-jafe bi loo bëgg rek jafe-jafe bi du metti mm-hmm. waaw jafe-jafe bi du metti coaching ba du mag mën nañ xam ndax coaching si Sénégal la nga koy def wala da nga ko doon def ailleurs génn suñu gaal. non man lépp fii lañ ma ko jàngalee. mais dama am ay partenariat yu nekk France États-Unis Canada mooy tubaab yi ngay gis yi fi nekk nii. Mm-hmm. ñëpp laay liggéeyal. international ñëpp moo fi fekk. fekk naa leen bitim réew te ba léegi maa ngi liggéey ak ñoom. Mhm. waaw loolu yàlla def na ko. nga nekk fii nag di entraîner ay mbër ñi dégg na yaa ngi entraîner mbër yu bari. est que mhm. mbër yooyu ba léegi yaa ngi leen entraîner wala par combat ngay entraîner. waaw xam nga mbër nag moom ñaare comme li ñu wax rek àdduna day dox mais xam naa ne lu ma génne ci Sénégal fii ay champion bari na te mun naa la limal quelque xale ak ay mag. Mhm. ñi fi jot a jaar parce que Birahim 2. maa ko maa ko doon entraîné. Mhm. donc bu muy daan nees maa ko entraîné bu muy daan Jules Balde maa ko entraîné. Mhm. mi yu gën a am choc maa ko entraîné entraîné naa Zallo. Rock Mbalax sotti làmb quatre combats yu mu maa ko entraîné. Mhm. entraîné naa Pape Sène naa Alou Badou ci mbër yu mag. Mm-hmm. entraîné na Lac de Guiers mu koy nuyu en passage. waaye mm-hmm. balaa ma ñëw ci Lac de moom ñu gis nga xam ne nii mooy xale bi nga xam ne sax fu mu ne nii toj làmb di Mor Kang Kang. Mm-hmm. ñu dégg na yow yaa ko entraîné lan nga def ci xale boobu. waaw Mor Mor Mor dama commencé di ko defar parce que tamit Mor la mujjee yor comme champion benn xale buy dem Mor bu muy xale ba léegi maa ko yor combat yëpp maa ko préparé. donc def naa ko ci Tonnerre 2 def naa ko ci Pouy def naa ko ci Tafaleel. def naa ko ci booy bawal bi nekk États-Unis maa ngi lay nuyu passage def naa ko ci ndóof def naa ko ci kéwél def naa ko ci wuli xale yooyu yëpp ba âge laa leen entraîné ba tey lamb bi tasaaroo bi. comme Mor Kankan mën nañu xam ba âge nga ko amee. ba âge Mor Kankan combat bi yëpp maa ko préparé. Mhm. kenn musul préparé Mor Kankan. Mhm. ba pare mu nekk benn xale boo xamante ni tamit ah, mi ngi ci tegu maa ngi koy entraîné. comme que yàlla nag may na ma bu ñu may defal bu ñu may jàngal musculation en bas mhm. dama màgg ci ay mbër yu ma daan gis. Mhm. màgg ci màgg ci ba tey expérience su mbër amul coach ma kopp Sénégal. Mhm. su ci say kàddu ñu gis na yaay ando yaa yaa yaa doon parce que su ma nee yaay. day ni ba léegi la yaa doon entraîné nga xam ne mooy Lac de Guiers numéro 2. ci combat bu mujj ñu gis état de forme bi mu indi. lan nga gis ne moo manqué ci moom nga yokk ci moom. bon Lac de Guiers lu naan booy wax booy wax ci nit rek waxal xam-xam wala nga bàyyi. Lac de Guiers dama doon def benn émission ñu tàllal ma micro ma ne leen Lac de Guiers entraînement baax na Lac de am na hygiène de vie mais niveau musculation Lac de Guiers dafa desoon. Mhm. yàlla def même pas deux ans ñu indil ma Lac de Guiers pour ma na ko. Mhm. te Lac de Guiers ma indee ma na ko. yàlla dimbali ma ma ma ma préparé benn équipe. Mhm. mooy combat ma ma ma seen. téye naa ko fi deux mois ferme. kon ko man nag su may entraîné mbër du ma bëgg génne ci média du ma wax ça m'intéresse pas. donc bu ñu may indee pour ma entraîné ko bu mu defee ci man trois semaines. première sortie Lac de mooy bu mu demee 2S. boobu Sénégal bi yëpp xam na ni Lac de Guiers mbër gënu ko taxaw Sénégal. ma entraîné nag moom Lac de Guiers daan jóg chaque jour 5 heures du matin Lac de Guiers maa ko daan woo sa pendant 2 mois 5 heures du matin laay jóg. balaa 6 sept heures pare naa entraînement mu ñibbi. donc ci période bi ma entraîner Lac de Sénégal bi yëpp gis na ni Lac de amul lu mu manqué combat ba. amul lu mu manqué ci combat ba lépp laa jox Lac de Guiers jox naa ko doole jox naa ko vitesse jox naa ko mantal lépp jox naa ko côté Lac de Guiers may dégg donc xam na li ma def ci moom. te nekkuma kësu boo xamante ni damay faral di génn ci ay médias di wax. mais Lac lépp luy mbër di ut. ci àdduna bi joxoon naa ko ci komba ba. ak ak Eumeu Sène. mën xam dara entraînement bi avant combat bi la wala avant pendant après làmb ji. dem dem suivi wala. gis nga man li ma gën a bëgg dernier combat moo kankan bu ne suba lay bëri mi ngi ñëw ci man. Hmm? waaye parce que gis nga mbër sa combat li muy gën a jege wéetal ak sa coach. Hmm. li muy gën a jege wéetal ak sa coach parce que xam nga forme dafa naqaree téye mën nga am doole te doo am sa forme mun nga ko ñàkk ci ay ay détails yu ndaw mhm. day chuté te loolu lay bañ mhm. donc entraînement salle bi dafa am maanaam entraînement mbër comme li ma lay wax rek mbër dafa am nu ñu ko war a entraîner salle loolu c'est rien à voir ak mhm. mbër dafa am lu mu soxla saal soo ko liggéeyee ma nga xam ni kii am na doole dëkk nga génn ak moom def sa réglage di yóbbu di ko yóbbu muy daw yi di ko yóbbu grandin di liggéey vitesse bi di xool cardio bi lépp boo xoolee boo duggee sama suite body max boo ko tàppee amul lu may waxul ci mbër bu war a entraîner comportement bi nii nga war a mel lépp def naa ko sama suite waaye mhm. ay si noonu dañuy dugg ci li nga xam ne actualité bi mhm. combat bi passe diggante Bombardier ak Balla Gaye balaa ma ñëw ci culture bi rek mhm. en tant que amateur naka nga gisee combat boobu la waaw xam nga combat bi bu mu defee bu mu defee bu mu desee deux jours am na benn interview moo ci defoon te combat bi passé wul. nga def ci ay ma def ci ay analyse parce que Balla retouram bi bu mu ñëwee ma koy nuyu ba baab su benn technicien bu nekk fii combat Balla bi comme d'habitude sonal na ma sonal ma <laughs> mais xamoon na ni d'accord ma xam na ko waxtaan na ak moom vidéo bi ngeen bi nga gis noonu sama YouTube ma def ko ci Balla Gaye mm-hmm. dafa am man je savais ni bombardier combat bi expérience lay indi mm-hmm. wala xadar ñaari yooyu moom rek lay indi. est-ce ñaari bi ñëwut. waaw parce que bombardier c'est normal mu taxaw xaar. Euh, Balla Gaye mais problème bi la man nee naa la Lac de trois semaines laa ko tëj mu dem premier sortie deuxième Sénégal bi yëpp na Lac de dafa taxaw. boo xoolee même Bombardier mi ngi koy Eumeu Sène mi ngi koy tooñ. Mm-hmm. ma koy nuyu à passage même Eumeu bi ñuy def réglage grande yu euh, monument de la renaissance man man damay nuyu Eumeu Sène su ma ko rombee. Mm-hmm. moom laa lay wax ni préparation bi déggoo ma dama bi ma gisee Balla ñëw gisuma ci Balla Balla aalu entraînement parce que Balla jënd fois boo xam ne dina toog ci bëre. man loolu moom mënoon jënd ak ñoom ñëpp di gis nañ ko xamoon naa ne doon technicien bu diis yi dëgg dëgg dëgg bu bëree te Balla am na poids boo xam ne boo ko defee du bëri bëri kat la Balla bëri rek la xam ñuy tàgg Balla yëpp ci bëri lañ koy tàggee kon kooku boo koy entraîné da ngay fexe mu bëree da ngay fexe mu bëree loolu nag métier la quoi métier bi nga xamante ne nii buñ la buñ la forcé bu dëgg dëgg dëgg xam nga soxna si am na yoo xam ne ma seetaan Balla mu nekk xale bu ndaw. bëri di dund ak bëri di dund maa ko toll nii ñu nekk ci musculation bi njëkk ko ci. nekk ci saal yi ba tey. naka la ñuy gën a mën a préparer suñu athlètes yi. non mënul nekk loolu mënul nekk tubaab bi mënul nit ñi soit ñaar mooy am coach bi moo dul xam dara wala coach bi bëgg tur wala sa métier moo ko la moo fi am mais coach bu mën li ñu jox la koo xamante ne am na mooy am na mbooloo am na lépp non vraiment man un mois dara ko bari un mois bari. mais Mbacke demoon nañu ko jàpp nañu ne coach yi jàpp coach lañ ko mooy waaw xam nga man dama dund dugg ci ma koy nuyu en passant Mohamed Alioune Ndiaye ñu de Guiers te Lac Mohamed Alioune Ndiaye bu nekk Sénégal nag. te euh, Lac de Guiers ñu dem signature ba Aly ma nga France te li ma leen di wax da ngeen dem ci Lac de Guiers ngeen man Lac de Guiers maa ko entraîné pendant deux mois sama xam-xam sama expérience sama mental Lac de Guiers may déglu Aly Ndiaye may man maa entraîné Lac ba pare def ko def loolu Lac de Guiers musculation lu musul atteindre ci doole ci màggal te lii. kenn mënul wax doo fi sa moom la dëggee du pare la dëggee man maa ko indil li mu man bëri mas aari moom moom boo lekk la dëggee pour ma entraîner ko point amul leneen te la dëggee doole bi mu yóbbu ci lamb bi yëpp préparation bi physique bi yëpp maa ko maa te fii laa ko def de deux mois laa ko def deux mois laa ko def non damay damay assumer li may wax bu dee bu dee bu dee salle yi nekk fii mbëri 45 minutes la ñuy bëree wala 40 minutes. 45 minutes lay bëri ñu bëri suñu mbëri bu e mënul aspiré ñu mën a tenir 45 minutes ci kooku ci doole ci intelligence. gars yi tëj leen seen saal yi loolu tëj leen seen saal yi loolu dafa war a arrêté coach yi nañ jël seen responsabilité bu ñu yoree ak ñu xam ne di ko man pour man loolu moo am solo mais gis nga la sax yenn ay complexe la man damay tudd comme ñëpp. su ma ubbi woon ñu ne ñu ne ñu na lu mu dem nga tax su ma bëggoon toog Suisse damay toog Suisse. su ma bëggoon toog France damay toog France ñu may fekk si fii musuma benn presse ne leen am naa ay gan ñëw leen man waruma bës man nee la saa bi am na 17 ans 17 ans yi maa ngi entraîné ay mbër ñëw fi am dem mbër sax caag bu koy bàmbara ma ko a sama doom boobu tere yooyu ñëpp maa ko entraîné musuma dem mbër sax parce que mbër foo làmb beneen domaine mais man di ma gën a bëgg Sénégal coach yi nañ jóg nañ jóg parce que millions yi ñuy fay tubaab yi le pire mi ngi fi man de ba dimanche maa yëpp di ma dégg tubaab du ma mën ci sama mbir mukk ci àdduna Moussa tubaab tubaab boo xam ni xamul fii booy jàngee bëri jàngoo bëri xamut ma jox la benn exemple bu ndaw. jigéen ñi boo ko yóbbee France technicien yi ñu koy wax ne daan sëñ bëree lan la comme ça ñu mun la ci entraîner nit bu ma leen bàyyi liggéey dix minutes quinze minutes ñu woo ma dama kii yaa mën a wax ñu dëgg parce ko sonn athlète da nga koy xam da ngay xam ni muy bëree da ngay xam kii cardio yi duñu benn ñii seen cardio dix minutes la ñuy quinze minutes la ñuy vingt waaw sama laaj bi mu lay wax rek. Euh, Balla man xam nga côté côté làmb bi ñu ciy bari parce que peut-être su may wax dama war a wax ni moom utiliser bi may def préparation. ak loolu ma ci wax dugg ci faral di juum parce que boo xam. loolu laa laa lay wax xam nga nee naa la def naa benn interview boo xamante ni nee naa la carrément forme bi ma gis Balla yor Balla bu loolu bu sooboo Balla ko bu bëri samay wax dafay leer Balla man la bëri kat Balla loo ko xañ loo koy entraîné entraîné te xam nga Balla yàgg naa ko wax Balla dafa nekk benn xale boo nga xamante ni Balla ko may taxawaay may ku bëri may ku fit may ku yooyu boo nekkee xale bu bëri comme Balla bu muy am vingt cinq ans bu muy am vingt ans ba bu muy am trente ans defoo génn mais boo commencé am trente ans foofu dafa am benn entraînement bi bëriwul ko. ba léegi ah coach bi la ñuy waxal. Uh-huh. Balla Gaye numéro 2 jour làmb ji mu ñëw comme ni nga ko waxee état bi nga gis si moom lan nga yaakaar ne moo ko manqué woon jour boobu. bon ba balaa may balaa may dugg foofu sax loolu. Euh, dinaa dinaa félicité Bombardier ah waroon naa leen félicité Bombardier woon félicité naa ko parce que tamit âge bu mu toll nii di tenir. kooku mhm. respect bu bëri pour Bombardier. Mhm. ñu bëri woon nañ xool ci moom. Mhm. te hygiène de vie ngi fii ba yàlla may na ko lépp donc instant bi li muy nekk nii di def di xaar xale yi di bëri moom la dese. donc bravo champion. maa ngi encouragé Balla Gaye te xam ne ñëpp ñu koy critiqué ci lay jàpp pour defaru bu baaxoon bu ñëwee ñëpp na baax na. mais bu ne la baaxul rek toogal nga defarwaat. loolu da ci am solo donc combat bi mu mu mujjee bëre man li ma ciy wax lu conseil bu ndaw bu ma ko jox rek du lépp la ñu mën a wax. Mhm. li nga li ngay jàkkaarloog bala Gaye wax ko ko. Mhm. ak li ngay wax fii du benn. Mhm. donc def naa dëgg bu gën a wër mooy jàkkaarloog moom. mais bu ma amee conseil bu ndaw bu ma ko jox bala bul génn Sénégal bul génn Sénégal bul génn Sénégal. del takk seen ngemb li di dem contact fajar nga dem saal ut coach bu aay hmm? mu lay entraîner utul coach bu aay wala coach yi la yor ñu jël seen responsabilité teg seen programme teg seen programme bu leer di la entraîner hmm. di nga am lu bëree bari bari bari parce que xaalis neex na trop mais honneur ko daax hmm. tey li nga liggéey yëpp réussite dans bi vie macha allah je touche du bas yàlla may na la ko. mais sa honneur na la jaral sa bakkan bi te fi nga koy teg mooy delluwaat ci suuf pour yéegaat parce fi nga nekk moo gën a metti ci làmb liggéey ba na naanaan nga. Mhm. toog ca kaw moo gën a metti ñëpp fa lañ bëgg a ñëw te ku la daan nekk naanaan. Mhm. donc danga war a conscient ci loolu donc man conseil boobu laa lay jox. Mhm. mi ngi noonu. tey jii bu toogoon Sénégal am na ay avance yu bari yu ñëw. Mhm. instant bala ngay toogatul avance a jël. prochain combat lan nga bëgg mu yokk ci buy entraînement. non moom laa lay wax rek xam nga xam nga tey du ma mën a toog na Balla lii lay yokk ak lii ak lii ak lii ak lii. Mhm. mais man yàgg naa di yàgg naa di critiquer ni ñuy ànd entraîner Balla. Mhm. te su may critiquer baal du ma bàyyi ba Balla daanu ba pare. ma naan Balla waroon na def nii waroon na def nii. boo leen seetloo ah émission bu may def bu ma doon def. a mhm. télé def na ay deux ans trois ans boobu Balla demagul France. Mhm. Sénégal yi yëpp dégg nañ ma ma ne leen fi ñuy entraîné Balla baaxul du gaaw a ñëw. Mhm. ñëpp dégg nañ ma te boobu dara xewul. parce que boobu nekkul ci combat. après yàggul defe naa sama wax jooju après un mois lañ ko yóbbu France. bu mu ñëwee ñu ne Balla am na résultat. yaa ngi dégg programme bi ñuy entraîné Balla Balla c'est un technicien nañ xool programme bu ñu entraîné ko. affaire yi du dugg saar rek dóor. dafa am loo xamante ni musculation ñu koy def dëgg-dëgg boo leen dugalee ci làmb duñu ñu bëre bëre dafa am lu mu laaj. dañ mën a def entraînement coach yi ñoo war a xool programme bi ñu defar xale ñu génn ci zone bii loolu dëgg. Aliou euh, man message bi may lay dafa leer man li ma bëgg. yàgg naa ko wax dama koy wax man dama gëm Sénégal tey ma toogoon Europe bi may fay alal bu dul jeex ma dem dëkk fa benn 10 ans benn 15 ans ñëw tabax dafa aay amul may wane ci Sénégal bi nga ruq bi ma nekk nii kenn yemuñu fii ci entraînement ci athlète personne personne laa la gëm sama bopp moo tax mu toog ci du ma dem stade du ma fréquenté man am yoo xam ne coach moom te coach yi nekk Sénégal génn leen ngeen di assurer seen athlètes yi teg leen ci yoon man je sais ay benn man mënu ma gën a tuwaat yi ñu gën a assuré ci bii loolu mënul nekk coach bu ci am sens lu jox la élève yi nga xamante ni mi ngi ci haut niveau bi da ko war a wane loolu moo dëgg sa pas normal ñuy jël xaalis bi chaque fois di ko doon fay tubaab bi ci benn 45 loolu loolu amul njëriñ te da gis ñu gën a yàqal mbëri fii seen seen carrière bu ñu bëree ba pare dootuñu am nag te jusqu'où day ñu ko ko wàcc pour nga perte sa pression dafa yomb man ko boobu bëgg naa coach yi ci prêter attention ba pare ngeen di moytu tamit di xas seen adversaire athlète loolu c'est pas normal du suñu cër xale ñaari xale yi bu ñu nekkee ku nekk na entraîner sa élève sportivement mais di xas élève bi jàmbur ndax sa euh, kii moom sa sa élève amul sens def naa message boobu du ma bëggoon gën a lancé ba tey di joxe benn conseil ci mbëri nga xamante ni ñoom ñu ngi dem ci kaw ba léegi gis nga ñi toog fi di entraîné yaa am ko ci bu baax ñoo fay pour avenir ñuy dem pour ñu entraîné parce que loolu recommencé wax à zéro liggéey baax na lépp a ngi seen climat baax na seen géej baax na seen saal fexe leen rek ba am coach bu da lay teg ci yoon te du la faan coach boo xamante ni day ñaan dàll ñaan njëriñ ñaan jubay du coach loolu du coach te dinaa leen wax ñetti affaire de gis nga coach da ngay am franc de parler coach da ngay nekk benn sportif coach da ngay maam yi soo ko amul mënoo nekk coach de haut niveau loo aay aay aay te amee amoo xam-xam boo dugalee amoo xam-xam boo xamante ni athlète bi ngay entraîné yow yaa koy tiital mais pas adversaire dafa am yoo xam ni nag dafa doy parce que dañuy gis léegi Sénégal ci boo xamante ni day dem États-Unis toog fay ak ñëw ñëw musu fi di former benn athlète bu toj Sénégal ci ci bépp demoon nag surtout ma lamb moom la ñuy def moo gën a aay parce que moo dem États-Unis tabax ay salle am ay moyens ñu ne dafa aay te musul def dara Sénégal daf fi bari mooy toog ñooy toog ci plateau di def yëpp. complexe boobu bàyyi leen ko boo leen demee ci saal man sama saal mi nii de bëriwul vacance mais aussi max sama bopp bii man xam-xam rek la may tàggee. bon maa ngi nuyu waa waa Sénégal yëpp di di wax ni wax bi may wax bi yëpp nga di koy coach la nag parce que point de parole laa am mais sama xol dara nekk donc maa ngi jox respect bu bari coach yi nekk Sénégal dina ñaanal yàlla. mbër yi millions yi ngeen yor jox leen ko coach yi ñu entraîné leen ñu am ci oto yi am ci kàrkaar yi parce que coach yi fi mu toll nii sonn nañ trop li ñuy sonal nag mooy millions yi saa yu ñëwee ñu dem yóbbu ko tubaab bi waaye fii coach yi nga xam ne am nañ xam-xam am nañ niveau amuñu complexe man daal xam naa ne yéen a marché xanaa tey day xuloo ci mission bi xuloo ma de mais damaa xam ni raay raay bi leen ko coach yi. waa di nga soxna si xam ne ni tey dama tàng donc maa ngi maa ngi maa ngi nuyu waa Colobane di la di la remercier di def ak yow émission bi nga xamante ni bon ku ci dégg loolu la nekk maa ngi déggul donc li ma wax ñi ma tudd seen tur nañ xool jëriñoo ci Sénégal jëm kanam gërëm naa leen sant naa si bëri moom a baax 252 buñ ko wut waaye di encouragé nga ne ni mooy Balla Gaye numéro 2 man ko dama doon cere yokk ñeex combat yi sa kanam hmm, xam nga mën a bira see si boo dee yi racheté wu daal parce que bu neex rek day mos a métti waaye mos a métti dina mos a neex man nag sama yëg day neex na damay sax di gërëm sama équipe bi ah man góor kenn du yokk loolu fi mu ne waaye 100% assurance loolu si bu dul na dund ma doy am ca dégg naa leen bu baax internet yi national international benn nit ku la am tàmbali